d'accord léegi li ma bëgg a mooy euh, on a vu que c'est sous le président Macky Sall ci la ñu xañee ay candidats seen bëgg bokk. ci élection ah ba mu yeggal s'il vous plaît. déedéet dama la bàyyi nga euh, gis nga d'accord maa la bàyyi nga continuer. on l'a vu ak Karim Meïssa Wade vous me direz que. justice moo ko condamné on l'a vu ak Khalifa Sall vous me direz aussi que justice moo ko condamné mais bi ci gën a métti Sénégalais yu bëree bëri mooy en ak le fameux parrainage bi nga xamee ne xaj na ñu bare bëri ñu bokk élection présidentielle yi mhm. te ñoo xam ne c'était des gens yu am un parcours politique mhm. am ñoo xam ne ils ont l'appareil mhm. ils ont fait leur preuve ci ay yu passées euh, mode de euh, naa ko mën expliquer mode bi ñuy utiliser pour écarter ñenn ñi ba dañ ko dañ ko ñaawlu ci président Macky donc Ousmane Sonko bu demee ba ci biir gis loo xam ne ci loolu la jëm ci moom rek automatiquement day day day braqué wu. c'est c'est ce qui explique un peu cette situation. est-ce que tamit yéen xoolaat seen seen doxalin. Mamadou Awa duñu xoolaat suñu doxalin et rien ne peut expliquer la violence sous toutes ses formes et ça je reste intransigeante moom laa la ko wax trois formes mm-hmm. la violence physique. que ça soit la violence verbale ou la violence psychologique moom la yoon war a mën a teg di ko wax nit yenn saa nga xoxotal nit te fekk sa loxo laalu ko ba tax na lu mu bëgg wax du ko wax. Mm. li mu bëgg def du ko bëgg def parce que. ñu ngi saaga ndey fi mu bëgg a bokk du ko du ko mën a bokk. ñu lay saaga nga jur ay doom def naa fi émission wax naa la ko ñu defal ma émission taxaw ni kii diw mii diw lii lay def lii lay def saaga ma xas man ni man. wax ma wax yu ñaaw ba sama doom bu am 13 ans moo ko gis donc pour te dire loolu c'est de la violence mm-hmm. man dama taxaw di wax ne amul lu mën a justifier loolu bu fekkee nous sommes dans un état de droit et personne ne peut nier que nous dans un état de droit parrainage ak si foofu mm-hmm. Mamadou Awa élection ñaata milliards la yow boo mënee taxaw quel que soit appareil boo mën a bokk te mënoo am nombre de parrain lan lañ lay jóbb di dem la démocratie ne refuse pas le parrainage attention dans les pays les plus développés comme que foofu bu bu neexee sénégalais ñu dem jël foofu ay exemple bu naqaree ñu delluwaat nañ delluwaat suñuy am am ak suñuy diine ak lu ñu am waaye bu jëlee ñooñu comme exemple ñu xam ne parrainage loo xamante ne démocratie nangu la. foofu foofu la machine est huilée. waaw may ma pareegu ma may ma pareegu élection bi ëpp solo ngeen def ci parrainage alors que machine bi sax jëlagul femme. kat tax ngay wax par exemple waaye teewul ba tey jàpp ñu menace la parce que dañ ko def li ñu ko war a def 58 pour cent dans l'histoire politique de ce pays c' la première fois nga dégg ko Mamadou Awa te nañ avancé waat ñu dem wàcc ma wàcc tuuti accès ba si Karim ak ñeneen ñi mhm. ki nga wax nu mu tudd PS bi Khalifa Sall Khalifa Sall ces gens là c' est des hommes d' état mhm. ces gens là ils savent ce que c'est étatique ces gens là gisoo leen ñu toog rek def ay points de presse c'est l'appareillage dans l'état de droit. ñooñu bu leen état woowee bu ñuy dem dañuy daak ndànk ñu dem ñooñu bu leen état waaw moo dëgg fan la mujj dëgg ndax kenn si ñoom waxul defuma kenn ki dafa ne du ma ndong keneen ki la def ba génn guddi jël avion ñi dem dowaa xaw ma ko ko kay ah! nit mën na fi génn tey te autorité joxewul seen accord. waaw yow xalaat non loolu laa la wax. comment mën naa génn su ma neex amul contrôle amul dara. ndax mu nangu signé loolu dem pour toi cette question xam nga je te dis j'ai l'habitude de la perception qu'on a des choses dépend du sens mhm. mooy yow gis-gis bi nga ci am mooy yow bët bi nga ko xoolee wala sa der ni mu ko yëgee wala sa nopp ni mu ko gisee waaye man ni ma koy waxee mooy lan Dominique tey jii am na koo xamante ni papaam boobu di président Abdoulaye Wade bañ ko fi doon jàpp kaso di ko fi tëj te mu leer ne ko moom dafa nekk ci dëgg buñ ko fi doon fekk négociation buñ ko mën def mosul génn dëkk bi mhm. au contraire bu wanee Sénégal rek ko ñor dinaa dugg ci gouvernement liggéey après bu génnee mu xam ne loolu doy ko mu génn mu demaat élection def lu ko war dama ni loolu tegul ci fenn xam nga lan la on fait confiance aux institutions de ce pays la preuve en est élection yi passé ñoom dañu am benn avancée bu ñu am poussé bu ñu am au nom de la démocratie et maa ngi leen di ko di leen ko nangoo. am loo xam ne. déglul ma wax la ko pareegu ma de ces gens là dañoo féliciter le conseil constitutionnel parce que dañoo dañ leen nangul li ñu amee décision yu loolu la ñuy wax la justice à géométrie variable ou la pensée à géométrie variable. loolu yéen lañ koy reproché. du yaa ngi wax ci Khalifa Sall yow dégg nga Sonko yaa ngi wax Khalifa Sall may ma rek après nga ñëw. waxal yaa ngi wax Khalifa Sall ne biñ ko jàppee da ne du man dong. mais euh, il a été maire boo xam ne wala ñu inquiété ci affaire yu mel noonu jàpp ko ci tëj ko ah. ñaata maire a nekk Sénégal il le seul à avoir fauté je veux te poser une question encore à travers cela est que léegi parce que ñun démocratie wala justice dina évoluer à un moment ba dañ ni léegi bu ñu daan sàcc ganaar te fekk ne seetoon nañ lii nekkul woon lu garaaw léegi dafay tax ku sàcc ganaar duñ la jàpp et ça c' est une analogie qui est terre à terre ankay ñoo bokk lu ñuy wax man dama ne dama ni dama ne Mamadou Aw boo ma posé question ñëw fi pour jël position yow yaa journaliste non non je prends pas position sama expertise la soxla damay posé question Khalifa Sall parmi les maires 500 et quelques non du tout ça le problème en fait la CREI laajteel CREI bi. analyse ba ñeneen ñi laajte ko li ñu ñu déposé li ñu ñu joxe si xaalis li ñu ñu delloo qu'est-ce que tu penses de justice de droit loolu yaakaar sanction sanction yenn saa yi mën na commencer par un avertissement c'est une sanction après mu am loo xamante ni dañ la koy teg sur le plan disciplinaire am sanction boo xam ne dañ lay wax na nga delloosi li nga xamante ne jël nga ko surtout ça quand ça concerne un exercice rawatina quand ça concerne benn structure boo xamante ni la charge de la preuve elle est inversée parce que celui qui t'accuse n'est pas censé amener des preuves yow mi ñu accusé ñu ni yow mi yow la ñu xalaat yow yaa luubal Mamadou Awa yow yaay dem nga indi ji preuve la ñu bëri ñëpp a njëkk a dénoncé. comme juridiction bu normal ah kooku mën nga koy laaj. non yéen la seen régime la. non du tout laajteel kañ la ñu créé. CREI kan moo déclenché CREI ak. ah kañ déedéet attends c'est sous votre régime. bu laajte kañ la ñu déclenché CREI Abdou tant mieux moi j'ai pas quelque chose j'ai pas de jugement à faire je me l'interdis parce que quoi que l'on puisse dire lu may wax dama koy teg sur tes principes. léegi léegi lan moo tax Diégui Diop ça n'arrive que qu'à des hommes yoo xam ne mën nañ nekk président. loolu yow yow yaa ngi xalaat dafa dafa garaaw. yow yaa ñooñu Karim Wade aujourd'hui Ousmane Sonko. la coïncidence non waxuma créé là je parle des ennuis judiciaires. Ah, ci ñi nga xam ne am eh. nañ ay chance pour nekk président ñooñu laay wax. léegi euh, weesu naa créé maa ngi justice d'une manière générale. est-ce que léegi parce que nous nous sommes des politiques que yow ñaata nit nga gis yoo xamante ne am na maire maire bu bu euh, kii Sindia jàpp nañ ko tëj. nekk président may ma pareegu ma bëggul nekk président. Mamadou Awa ñi bëgg nekk président laa wax. Khalifa Karim Ousmane Sonko Idriss Seck dans le passé Mamadou Dia dans le passé. waaw kooku kon nga suis pas censé répondre à cette question wala j'ai pas des réponses moi ce qui m'intéresse c'est que le système qu'on me dise que je suis pas à présent d'un état de droit. Et j'ai la conviction profonde que je suis en présence de l'état de droit. Qu'on me dise que la justice, elle n'est pas autonome. Je dirais que non, parce que je fais confiance à ces hommes d'État qui sont là et qui rendent des justices. Je dis encore que yow boo nekkee politique mbaa nga bañ a nekk politique ak loo mënti doon ak koo mënti doon les droits humains ak koo mënti doon ñun ñëpp ñu sommes équitables devant la justice man lii moom ma doy. et puis dafa dalal sax sama xel. lii dafa dalal sama xel dafay wane ak ñun ñii. fu ñu mënti doon ak lu ñu war a mën a def nañu tiital suñu bopp xam ni c'est pas parce que nous sommes des politiques que nous ne sommes nous serons pas jugés man loolu laa ko gisee Mamadou Awa. Mhm. il faut qu'on arrête d'être nihiliste. il faut que nous sommes dans jeune 60 ans d'indépendance la am ñuy corriger di exécuter ñuy dem il faut que ñu nangu am na point A bu ñu jógee ñëw point B est-ce que mës nga dégg de 1960 à 2000 am na policier boo xamante ne jàpp ko bu fekkul woon ab ak policier yi Abdou woon. est-ce que mës nga dégg am na manifestation boo xam ne police daf ko def au nom de l'ordre public ba pare ñu jàpp ay policiers tëj leen summi leen ndax loolu c'est au de la démocratie et l'évolution de l'état de droit nañu nangu waaw góor nañu wax ne am na foo xam ne fekkoon nañ ko réew mi am na foo xam ne yóbbu nañ ko te day desaat kii remplacé Macky dafay le président Macky Sall day ñëw def kooku day demaat ki dem ñëw remplacé def mais xam nga lan lay bañ ñu taxaw bëgg def ce qu'on la théorie du chaos il faut arrêter